nit ñi man moo may xaw a. ci noonu nag man jaar naa ma habillé lay remercier. muy Samba Kees. a ngi papa Ahmed may ma ki papa may ma. il faut que ku fi tudd tur ak. maaleykum waaleykum salaam waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa nga may ma tudd. ay waaleykum salaam wa rahmatulah. ah may remercier bi ma ko may sa tàggu ah, bi nga daal di kii rek ñu xuus ci nga xamante ni. borom borom bi taa d'accord c'est bon. mooy mooy revue des titres. papa ah, ñëwal waaw Ahmed naka mu. maa ngi nii nuyu naa Chérif Aïdara Karara ak Pa Assane waaw ñu ngi laa ziar ak uh, sama jarbaat boobu toog. waaw Papa Ahmed ak uh, dé bigi. moom moo ah? man samedi ñëwuma. waaw tey dama tardé. <laughs> waaw. ba samedi yaa ngi wax may ma ma wax. waaw tamit <laughs> <laughs> tamit. te mee may rediffuser dimanche. ma wax. waxal waaw waxal daa mee ñu xoj damaa nekkoon suuf doon lijjanti ay dossier ñëwal tur bi mais man man dañu war a wax ci sama tur bi ngay fàtte nee na ma sànq damay fàtte tur bi waaye. acca ñu daal di ay xeer yu ngand waxuma ay béton de ngandi kaba moom la Moustapha Cissé Lo jël joor ko waa kër benn nee na APR dañ ko war a renouveler 2008 ba léegi mësuñu ko renouveler gars yi xamuñu seen base fan la toll dañu wax dëgg Moustapha Cissé Lo nee na la situation du pays est difficile wallaay hausse des prix des denrées de première nécessité dund gi Cissé dem na ba ne même réewu taax léegi mbir mi dafa tar dafa métti Mm-hmm. acca waay daa mitti waay waaw kay vingt quatre heures ñëw si Fatou Bintou Gueye gis nañ ko doom ma Matar Gueye waaw waaye ni ñu ko gisee nag moo xeeñul neex <laughs> déggoo ma de niñ ko gisee waaw xeeñul neex non non du ma ci débat tey dama tardé j'ai que trois minutes ñëwal ñëwal Sadio Mané ngi nii tax na nag ba Liverpool fi mu nekk nii jege na jege na jege na ah, jege na titre bi de Sadio de moom Liverpool de ren moom vraiment voilà léegi nag problème mu gaz pétrole oyo sër yolom geño <laughs> waa waa waa Sénégal moom est-ce que mën naa rëcc paasan looy rek <laughs> te yolom geño laa mënta muñ <laughs> théâtre bi ah, geño doy nga papa da nga doy waar nga wax de nga doy waar nag ngi nii de ak ressource gazière ñoom it seen pétrole waaw réew daa toj jaxasoo de ah. jaxasoo na de. oyof sër. yolom ngeen. mais sër looy rek. Eh, yolom ngeen laa gëj a dégg daa yolom ngeen waaw kay enquête yi ne kaay nañu gis nga américain yi dellu si waat nañ suñu plateau médicaux yi de nee nañ dinañ ci jublu. Hmm. région yëpp danañ ko defaraat indi nañ fi koppar gu bari nag rawatina ci lu jëm ci wàllum énergie aca maam si da ngay gaaw Bachir Ba nee na Moussa Baldé ministre agriculture li mu wax ci lu jëm daal ci wàllum mbay mi daal xam ma ministre bi nee na moom bu kenn wax affaire campagne arachidière ne doxul dégg nga waa ji nag daal dina koy démonté mais ñi ko wedd ñi wedd ministre bi bari na nag moo a ci jaaxal doom critique yéen kaa ñëw ak ñun ci ardu ñi nga dane woon nañ leen dem wutali palais ba ñun ñëpp ñu jàppandu ci giri yi ngir Guy Marius Sagna génn la ñu koy toppee nag mooy appel à l'insurrection ardo mi daa mën a tojub réew la Sénégal ñëw ngeen ci président Macky Sall communication bi doxul paasan da nga ko war a jàppale yaa bigi bigi bigi wuyu bigi wuyu jàppaleel sa waay waay jàppaleel Macky kan laay jàppale parce que li ñu koy critiquer ci communication bi dafa bëri mm-hmm. bëgg na ko ci jàppale de d'accord léegi ko yéen kaay ñëw ngeen ci Aminata Mbengue Ndiaye ak waa au conseil ñoom bu ñu sañoon mairie bu Ndakaaru ka fay ne Macky fal ko par décret ñu dindi fi élection ñuy fal maire décret. indi na coow lu rëy. waaye moo tax journal bi ne waa APR xaw na ñoo rey Aminata Mbengue Ndiaye ak ñi mu àndal parce que du Cissé Lo du Abdou du Mame Boye ñoom ñëpp ils sont pour la nomination du maire. man man xam nga amee lu ma jaaxal. waaw lu tal nitu PS yi parti socialiste yi ba ñuy lan la. xamewuñu ko jàppale jàppale buur ba ñett sës buur ne bëgguñu. doy doy doy na waat waaye yaay du ma ko ruus. Mhm. sama yaay la. ex clause de conscience. le métier me donne trois points de suspension. waaw voilà yéen exclusive yéen a kaay ñëw ak ñun ci. Macky Sall ak fonction publique locale bi. moo de fast track la ci bëgg. maam booy jaawoo nag la mu xamle daal mooy. élection maire vraiment loolu delloo démocratie ginnaaw la. ambassadeur du Sénégal ci France. Mm. moom daal lañ ko doon doyee daal du ko ëpp. dafa ëppal di sëñ bi lal yow mii <laughs> baax na. Abdou Mbow nee na ñu ñu épinglé yëpp. waaw dañoo war a démissionné bu ñu xaar ñu leen di sanctionné. wallaay jox nañ la teraanga askan wi jox la ay ndomba. wallaay ngay foqale jaawale sa poos ak poos askan wi. wallaay mais yow waroo xaar sax président di la sanctionné. wallaay <laughs> mais le mot démission. am xam ah. vraiment. libération yéen kay nee na moom. di vocabulaire africain xamuñu ko. <laughs> libération yéen kay ñëw ñun ci OFNAC la démission xamuñ ko. dégg nga Petrotim Petrosen ndekete yoo contrat yi dañ koo falsifié. et eh? temps baa ñu xoj mais déglul yow revue de presse bi rek toj naa ko ci. <laughs> Ibrahima Mbodj moo nekkoon ancien DG. lu doy waar a doy waar yoo xam ne dañ koo antidaté <laughs> non ñin ñin réew mii dafa kal l'observateur ñëw ñin ci Guy Marius Sagna 79 jours. ndeysaan mm-hmm. dund bi muy dund nag dund yerwaan la. ndeysaan miti fañ ko dugal moo njëkk a garaaw. Mm-hmm. lan moo tax ba jabaram tam nekkul chaque jour mu dem seeti ko. te li ñu def Ousmane ko moom lañ koy waajal. dañ koy dàq fonction publique loolu la ko gaa yi di waajal. Hmm? doy na wala ma dolli doomu Mame Matar Gueye baa ngi nii. Hmm. waaw kay xale baa ngi nii Fatou Bintou ngi nii. tudd indi nañ ko dañ ne woon daa réer. feeñ na moom dafa réer. waaw mais police nag vraiment papaay xale bi mere na leen trop niñ ci communiqué nee na baaxul. mais moom dafa réer wala. feeñ na feeñ na. ah feeñ na. waaw <laughs> gis naa dafa ma people de dafa ma people de. non <laughs> nekkuma fi di wax ay fan la nekkoon waaw <laughs> ah, foofu daal laa yem. non dama gis ràngu doon doon doon masawu réer bi. Mame Matar Gueye il faut yi sonal ko. Mhm. ndax moom dafay nekk di dajji lobby. di xeex lobby. moo tax gaa yi luñ ko ne xeex ko xeex ñooñu di xeex Mame Matar Gueye nag. Mhm. man duma leen jàppale. man je suis de son côté. merci waaw ah, kay le quotidien ñëw ak ñun ci ñaari réew yi nga xam ne mburoog soow boole naan wala boole tuur caakiri lu baax lu baax lu baax la ci Sénégal. retour États-Unis en force bi lu baax la ci réew mi. waaye nañ leen di informer luy dëgg. waa ji ñëw fii naan ay xaw ma dëkk bi dëkk bu am am démocratie la. ñu may waay. tuddee pare naa ah, un arbre de démocratie. selon Mike Pompeo mii di secrétaire d' état américain. kii est ce que wax nañ ko dëgg sax. source à ñëw ak ci. gis nga APS. paasa. waaw présidentielle yi soixante cinq millions. waaw loolu moom mu jaaxal. waaw ah, moom lañ leen joxoon. ana xaalis bi. rek laaloon na cinq millions sept hmm. naa pour communication tonton. Hmm. tonton lu ko lay def lu ko neex. ay ma ko de. xaritu dégg naa. non tonton Jogay xamoo. xaw ma ko damay dégg rek. ma naa xaritu xam ngeen tonton. waaw xaritu Ba Assane Seck. mooy tonton. tonton mooy ki jur sama ndiroo waale. ki. ki jur sama ndiroo waale man. Euh, continuez voilà. dama ci dégg la dëgg papa. baax na. doo ma dugal mukk ni ñu éliminer gaa yi la ñuy wut fi mu nekk nii. dañuy éliminer gars yi benn par benn. benn par benn. tonton ak waa këram du ma ko nangu. suite quotidien ñëw ak ñun ci Robert Sagna. nee na guerre bi jeex na de. mais attention jàmm amagul Casamance ba tey. ah bu dee guerre bi jeex na it jàmm amu fa. Hmm. karaate gaag yëpp a fa mel ni tulleeg màlle doy na nag. tey dama sonn. ah jeex na ko jaajëfal ñu des xaar ba suba dëgg li ca des ñu xaar ba suba ah, te di ah, ah, fàttali téléspectateurs yi waaw téléspectateurs yi di leen fàttali ni revue de presse bi dinañ dinañ ñëwaat ci journalu 13h bi incha allah dégg demal fële waaw ñu di la jaajëfal bu baax a baax tey moom xista amul da yaram bee tàng weekend bi xam naa daal mhm. jëlee ma ci moom sax yéen chemise laa njëkk apprécié bi ma ñëwee <laughs> nee na buñ ko catu lii mooy bu len ma catu maam si di nee na <laughs> ñun buñ ko wanee buñ ko catu ñu di ko jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal yéen it téléspectateur ma di hmm. leen bàyyi rek ngeen seen mot de la fin bi moi je remercie Samba Ken Bonavita moo ma habillé au 77 308 aussi un joyeux anniversaire à maman Aïcha Sey depuis Cité Douane et son petit-fils euh, Mohamedou Moustapha Rasoul doomu Arma ak Dabaye borom confirmation Communication boutique. ñu di la jaajëfal Fama. merci beaucoup Asma merci à vous merci à nos amis fidèles téléspectateurs ça a été un plaisir je vous donne rendez-vous demain. incha allah ouais, je rappelle que la permanence pour cette semaine sera avec Fama Ba kon dinañ gën a mën a waxtaanee musique incha allah elle va aussi participer dans l'actualité pas Assane. ce qui m'emmène à toi ñu ñu yendu jàmm. ak salaam ma bàyyi téléphone bi nag. non dafa am dafa am dafa am dafa am ay kilifa yu ma gis ñi ñuy seetaan. Mhm. il faut que ñu nuyu ñoom Adama Sow. Mhm. grand journaliste réputé bokk na si ñi nga xamante ni ñoo ñu jiitu ci métier bi dalal ñu mhm. euh, ngi gis ñoom Jéegi Diop mhm. euh, ak ñeneen nag bëri nañu ñu di leen jaajëfal xam nga lu lu lu baax Hmm? ñii def maman si. bu sunu maam Serigne Cheikh Tidiane si al ñu di ko nee na mhm. saa yu xëyee nee na. saa yu suba mhm. daf ñu ñaanal. ci barke maam xalifa Ababacar. asmaa la sopp ndeysaan. macha allah macha allah loolu moom dafay sedd xol. Hmm. ndaxte eh, ñun bu ñu fekkee ni dañoo am ay tuuti manqué hmm. manqué sax. ñooñu noonu ci seen barke eh, eh, waajur ak seen barke maam. ñoom dinañoo muccal daal kon am na solo di nuyu surtout maam Baye Niang.